jaamu yow dong la ñu sukkandikoo ah bu yàlla yemoon foofu def deux points da nga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la da nga naan ihdina siratul mustaqim da nga may ñaan njub ndax kaw suuf gisuma ci lu gën njub rabbana yow yàlla innaka yow de jaamiun naasi yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne laa rayba fiihi amul sikki sàkk ne bis boobu dana ñëw mooy maliki yawmi diin jaamiu naas li yow min laa rayba fiihi baatu jaamiu nag muy yàllay dajale nit ñi moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay ay invitation dina bëri ñoo xam ne duñ dem ndax képp koo xam ne kii yaa ngi bëgg a dem say mbokk lu ne danañ ko daj pour doo dem foo xam ne nag boo fay dem say mbokk buñ sañoon doo dem boo leen rëccee ba dem sax ñu jooyu ko ay fani fani fan dama ne bis kër googa ñangaay ga tax na kenn sa waru ca ku nekk war na koy waajal yàlla moo ne fii jaamiu naas li yow min laa rayba fii amul sikk sàkk bëri na ñoo xam ne gëm nañ ne faatu am na liñ gëmul mooy ginnaaw bis ginnaaw faatu lay xew dekki gaak ñoom seen yooyu waaye koo xam ne daal boo nee ci waajaay nga war a am yére yu bees war a am kër gu bees war a tukki tukki bu bees lépp taxul say mbokk kontaan xanaa ñuy jooyoo ak di am aw naqar ak di daje dama ne foofa nga jëm ah yow war ngaa fexe ba waajal bis booba laaray ba fii amul sikk sàkk arab ba nee na waladatka ummuka yabna aadama baakiya wannaasu xawlaka daaxikan masruura faamal li yawmika kay takuuna ida bakaw fi yawmi mawtika daaxikan masruura nee na yow dama aadama da ngaa judd rek nit ñi wër la ngay jooy sa mbokk yëpp nag di ree sa papa mi ngi ree ndax am na taaw sa yaay mi ngi ree ndax am na taaw sa maam mi ngi ree ndax am na sët sa bàjjen mi ngi ree ndax yaakaar na tubarkalla kenn ku nekk mi ngi ree yow nag yow mi ñëw ci àdduna si yow yaa ngi jooy waa ji nee na na nga fexe ba bis bi nga fiy jóge sa papa jooy sa yaay jooy sa bàjjen jooy sa maam jooy nee na na nga fexe ba def sens contraire bi bi ngay ñëw da nga doon jooy na nga fexe ba booy dem na nga ree parce que sa mbokk ñoom fokk ñoom ñu def sens contraire moom sa mbokk yi bi ngay ñëw danañu jooy danañu ree ñoom waaye boo fi gontee wala nga xëyee fi dinañu jooy yow nag na nga fexe ba def safaan bi parce que bi ngay ñëw da ngaa jooy da ngaa jooyoon wax ju am solo la yoo xam ne jar a bàyyi xel la kon yàlla jaamiu nnaasi li yawmin laa rayba fiihi inna allaha yàlla laa yuxlifu du wuuteeg al miaada randiw boo xam ne bi joxe na ko yàlla daal tabaraka taala lépp loo xam ne wax ne fo loolu dana ko def moom bu ñëwee kenn muntatee mu def ko inna alladina ñi nga xam ne nag kafaru wedd na ñooñu dañ lan tuxniya anhum du leen jariñ lan tuxniya du fekk anhum ci ñoom amwaaluhum seeni alal lu mu bari bari du leen mën a fegal wala awlaaduhum seen doom ya lu ñu bari bari lu ñu am am doole lu ñu am situation situation duñ leen mën a fegal min allahi ci yàlla bu leen bëggee duma shay an dara yàlla nee na ñu weddi yàlla mu ne nii la ñu ne du noonu mu ne fii la ñu ne du foofu mu ne kii la ñu ne du kooku ñooñu lan tuxniya anhum du leen mën a fegal amwaaluhum seen alal ya wala awlaaduhum du caageg seen doom ya min allahi ci yàlla bu leen namee duma shay an dara wa ulaayika te ñii nag ñi weddi yàlla hum ñoom dong waquudu naar ñooy matum sawara waquudu naar ñooy matum sawara yàlla ñu ca la musal matum sawara yàlla nee na mooy nit ak jinne waquuduha annaasu wal xijaara gis nga fii mu ne wa ulaika hum waquudu naar matt dafa am benn xale bu daan ñëw ci jàkk di ànd ak mag ñi di jàpp di bokk ci sàppe su njëkk si xam nga mag ñi am na ci ñoom ñoom it seen gisin ci diine tabarakallahu la yàlla xam doy na mel na mag xool ko bu ñëw mu ne ko doom mu ne mu ne ko dama lay laahi biir gone buy jaamu yàlla day gaaw a dee kaay nga dem seen kër nga toog xale bi ne ko papa mu ne mu ne ko man damaa gis firikat bi ci jàkk ji nee na waquduha annaas wal xijaara sawara nit ñi ak ak jinne yi waa ak doj yi ñoom ñooy nekk matt ma mu ne waaw mu ne ko sama yaay damaa gis buy taal matt mu rëy mi matt mu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matt mu rëy mi bu jàppee moom matt mu ndaw mi mën a jàppal matt mu mag mi mu ne ko waaw mu ne ko ma ragal bu ñu demee yom la xiyaam yàlla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi mu ne ko doom yow bu yóbbu nga jaamu yàlla ndax doo gone waaye xalaat boobu ulul albaab yi ñoo koy xalaat ulul albaab ñooy xalaat ne gone dina dee mag dina dee ku dul mag du gone sax dina dee góor dina dee jigéen dina dee te it nag ku dee ku nekk boo demee sama borom tabaraka taala dina la réglé xam na nam lay réglé kon gone googi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nekk war na koo roy di xalaat ni nga xam ne noonu doon xalaate mu ne kon wa ulaika hum waquudu nnaar yàlla ñu ci yàlla musal ka da bi aali firawn nee na mel ni doxalinu ñooñ firawna wala aaday waa kër firawn waaw aaday waa kër firawna mooy nangoo weddi yàlla nangoo ànd ak moom ci mbir ya mooy lu firawna santaane ñu ànd caag moom ña nangul firawna wallazina min qablihim ak ña leen jiitu woon temeloon na ñooña ñoo ñépp tabarakallahu yàlla nee ne kazzabu bi ayatina dañoo weddi woon suñu aay yi fa axasahum allahu bi zunubihim yàlla jàpp leen ca seen sababu bàkkaar ya wallahu te yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la yàlla ñu féewalee ak mbugalam subhanahu wa taala aay ji may bëgg jàng muy fukkeelu aaya ak benn fukkeelu aaya ak ñaar ci suratu al imran li ko tax a wàcc moo di muy sababu nusulam bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex na badar xeex koog waa Quraysh dellu si waat al madina dafa dajale yahud ya ca madina ne leen yaa machar al yahud aslimu qabla an yusibakum allahu bima asaaba quraysan yéen yahud yi yéen ñëpp ommatu leen ci islaam balaa yàlla yi def ci yéen lam defoon ca waa Quraysh faqad araftum anni nabiyun mursal xam ngeen ne man mii ab yonent laa yàllaa ma yónni waa waa yahud yi ne ko yow mi yàlla yónni da ngaa dajeeg ñoo xam ne mënuñoo xeex yow ñi nga dajeel waa Quraysh dañoo mënta xeex waaye su fekkee daje nga ak ñun da nga xam ne la ñooña la ñu doon jéem lu ñu mënut moo tax nga dàq leen ca ca ca Badar waaye bis boo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door daje ak góor waaw wallahi law qaataltana la arafta anna nahnu rijal wa annaka lam talqa mithlana soo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door a daje ko góor loolu bu ñu ko waxee nag la yàlla subhanahu wa taala ñëw nag di tontul ndawam lii di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko qul waxal qul waxal lilladina kafaru ñi weddi yàlla dikk di la dëkk di wax ne daje woo ko góor nee leen sa tuxlabuuna waat naa ne daañu leen gañe bu ñu dajee wa tuxcharuuna daañu leen fang dajal leen yéen ñëpp ilaa jahannama jëme leen sawaraw jahannama da leen di rey lakk leen yéen ñëpp loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam la ko yàlla wax qul waxal lilladina kafaru ñi weddi yàlla képp ko weddi yàlla mu ne leen sa tuxlabuuna def na leen gañe ku weddi yàlla fas yéene song lii islam ku weddi yàlla fas yéene song lii muhammad sallallahu alayhi wasallam ku weddi yàlla fas yéene song lii alquranul karim sa tuxla bona dañ lay gañe rek yàgg yàgg dañ la gañe wa tuxsaruuna te it daañ leen dajale ginnaaw defet bi ilaa jahannama jëmi leen sawaraw jahannama wa bi sa bann almihaadu lal boobu nga xam ne mooy sawaraw jahannama yàlla ne leen kaay leen ma tegtal leen qad kaana lakum am ngeen ayatun kéemtaan yéen am ngeen mandarga mu leen wan ne buñ tafe yéen gañe leen kéemtaan li mooy mandarga mi mooy fii fi atayni iltaqata ñaari kuréel yoo xam ne daje woon nan ngeen di leen gis Quraysh ak muslimoon yi muy ñaari kuréel fi atun am na kuréel boo xam ne muy muslimoon yi tuxaatilu fi sabilillah mi ngi xeex ci yoonu yàlla pour bëgg a yëkkati baatub laa ilaha illallah wa uxra am na beneen boo xam ne kaafiratun moom daa weddi yàlla mi ngi xeex pour laa ilallah jëm suuf yàlla leen ñaar yooyu ci seen kanam la xew woon kuréel bu jóg bëgg laa ilallah jóg taxaw ak kuréel bu jóg bëgg laa ilaha illallah fay yéen ngeen di seetaan yarawnahum ña ngi leen di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'yal ayni gisug bët nga xam ne buñ leen xoolee rek dañ mel ni ñaar ci ñoom yaral muminuuna al kafirin aksar minhum marratayni julit yi bu ñu gisee yéefari xool leen day mel ni ñoo leen ñaar ce mais gisug bët la moo di bi ñuy dem ñoom junni la ñu ñoom waa waa muslimoon yi nekk trois cent treize trois cent treize yoo xam ne woor nañ dix-sept jours door a jóge ci tàngooru al madinatul munawwar dem te fekk ñoom ci àll bu ñuy wax Badar nekk fay fan door dajeek ñoom teewul ñu duma leen dàq leen yàlla tabaaraka taala ne gaa ñi loolu yéen war ngeen ci xalaat waaye nag wallahu te yàlla nag yu ayidu mooy dimbale yàlla mooy dëgëral bi nasrihi ci ndimbalam man yashaaw képp ku ko neex mooy dimbale ci ndimbalam képp ku ko neex yàlla it du dimbale kenn nag ci la ko neex ndimbal goo xam ne da ngay jaaxaan sa kër toog fi nga toog mu dimbale la nekkoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla dimbale day toog madina rek mu dimbale ko yàlla du defal kenn lu man yàlla day fekk nga def ba def li nga mënut mu door a tàmbali fi nga mënut defal la bu ñu yàlla baaxee ba ñu àgg suratul waaqiaat yàlla day wax ne du ma defal kenn lu man bi maana bu ruuj jotee tey mbay di jot yàlla day muus kenn du dem sa tool fekk yàlla di ruuj kenn du dem sa tool fekk jibril dafa ruuj kenn du dem sa tool fekk israfil dafa ruuj yàlla nee na du ma dajaleel kenn aw jiw yàlla nee na du ma du ma du ma jixal kenn nit nag waaye soo ruujee wut saw jiw defar ko ba mu baax yàlla it nee na du ma puudaral kenn aw jiwam boo ko puudaral it am naa fi samay gars yoo xam ne ñoom ci da ay gunóor ak ñoom seen yooyu dinaa leen may autorisation ñu ñëw lekk sa gerte gi yëpp yàqu ko yàllaa wax loolu. léegi nooy def yaay wut saw jiw xolli ko ba mu baax wut sa poudre def ca defar ko ba mu jekk li ci des nag moom mooy bu bu yëpp mu yembee yàlla ne ah fii nga yem mënoo taw demal tëdd sa kër nelaw ma tawal la yàlla tawal la ba mu tooy xeeb ne la ah. du ma la jiyal nag parce que mën ngaa ji su ji jotee yow yaay dem ca sa tool wàq say kàmb wala boog say pax wala sa machine nga suul ca sa gerte soo suulee ba noppi yàlla ne ah léegi comme mën ngaa ji waaye nag mënoo saxal demal tëdd nelaw man danaa saxalal allahu akbar nga tëdd nelaw subhanahu wa taala saxalal la ba mu sax ne la nag bi may saxal nag damay saxal sa gerte gi waaye damay saxal sama ñax mi parce que sa ger sama gerte gi yow laa koy gerte gi yow laa koy saxalal ñax mi nag danaa am yeneen bàyyi ma yoo xam ne dañ koo bëgg léegi nag yow bayal li lay intéressé li lay intéressé bàyyi ko fi li lay intéressé wul da ko ko bàyyi boo leen fi bàyyi ñoom ñaar ñoom ñaar ñu fay màggaloote sa gerte du baax moo tax yàlla du bayal kenn yàlla du bayal kenn waaye soo bayee noonu ba mu set mu ne comme mënu màggal tuddal nelaw maa lay màggalal maa lay meññalal noonu ngay toppee ba yàlla màggalal gerte gi meññal ko bu déqi jotee yàlla ne du ma déqil kenn nga jël sa gopp dem ci àll ba déq ba mu set mu ne waaw comme déq nga ba noppi naaf nga ko tar tar nga ko kon naaf nga ko léegi mënoo ko woowal man maa lay woowalal daal di yebal jantam bi mu woowal ko ba wow koŋ mu ne du ma la bàccal nag du ma bàccal kenn gerteem léegi yow yaay jël sa bàccukaay bàcc ko ba mokk rumbux bi mu mokki rumbax nag yàlla tabaaraka taala ne la léegi bàcc nga ba noppi mu ne waaw mu ne ah léegi du ma la ko jëril fii daal li fi des mooy soo yëkkatee gerte gi ba ca kaw daal sooy wàcc man dinaa fi jaarale sama ngelaw ma itam nag ma xaajale la ngooñ mi ak gerte gi waaye nag soo yëkkatiwul tamit du ma wax benn malaaka mu la yëkkatil gerte gi bu ko defee da ngay gis nit ki day ñëw yëkkati gerte gi nii ca kaw di ko yëngal muy jëreeku yàlla di ngelaw di xàjjale ngooñ mi ak gerte gi soo par na yàlla ne la ah waaw fàttalikul nag fa nga tàmbali jiyee ba léegi li nga ci def man yow ak li ma ci def man loo ci tëli lu nekk man yàlla maa ko def loo ci man lu nekk yàllaa ko bàyyee léegi damaa bëgg ñu séddoo damaa bëgg juróom-ñeent yoo wañ ñi nga dindi benn ba jox ma ma jox samay faqir allahu akbar juróom-ñeent yow ñu nga jox ma jox benn ma jox samay faqir da ngay gis ku bay ba noppi boole lépp lépp lépp lépp du ci sidd yàlla mi mu ko bokkaloon mooy tax bu déwénee yàlla ne ko maa ngi la fi xaar bu ko defee mois de mai jot yàlla tëye taw mois de juin jot yàlla tëye taw ba mois de juillet ñu naan xëy na ñu am nawetu xar baax ma ne mbokk yi yàlla tabaaraka wa taala ku jar bay xel la moo tax bu ne yu ayyidu bi nasrihi man yasha ci ko ko neex ki ko neex kii mooy kan mooy ki def lim man lépp bàyyee yàlla lëmtale mu defal ko ko waaye du caagi ne man yashaaw ku ko neex mooy mën ngaa jaaxaan sax mu defal say affaire déedéet am na yu bari yoo xam ne boo ci xaar yàlla du jak mukk inna allah laa yuxayiru ma bi xawmin xataa yuxayiru ma bi anfusihim yàlla defal kenn lu loo xam ne lii yow mën nga ko waaye nag saa boo defee li nga mën nag ba pare rek na la wóor na yàlla dina defal li nga mënul inna fi zalika nekk na ci lii may wax nag yàlla ne na la ibaratan waaraate wuréy li ulil absaar ci ñu am gis képp ku am gis war nga xam ne baykat bii kay ni mu gëmee yàlla tabarkalla te it nag ñeenti affaire la fa yàlla wax muy doom wàllu mbay wàllu ruuj ak wàllu sawara bu ñuy taal bu ñu yàlla baaxee bu ñu àgg suratul waaqiaat da nga gis ñeent yooyu yëpp tabarakallahu tabaraka wa taala jàngale ko fa di wax ne du ma defal kenn loo xam ne lu mu mën la yàlla tekke ne ziyina linnaas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ linnaasi ci nit ñi baat bi yàlla waxut zayyana déedéet daf ko def ci fiil lil majhul mooy am na ko rafetalal nit ñi kooka ña ngi koy jiñ seytaane am na ko rafetalal nit ñi lu mu leen rafetalal xubbu shahawaat xubbu shahawaat bëgg ba neex bëgg ba neex mina nisaa ci jigéen ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne seytaane rafetalal na ci ñoom bëgg bànneexoo jigéen bëgg bànneexoo jigéen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngay wax ci ab hadis ma taraktu baadi fitna adarra ala rijali min annisa axrajahu albuxaari nee na bi mu fi jóge ginnaawam bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen xubbu shahawaat min annisa wal banina ak i doom wal qanaatiri ak ay ndamb al muqantara yu ñu ndamb ndamb yu ñu ndamb maanaam denc bu ñu denc rek di konte ka waññi al qanatir al muqantara mooy denc ba dafa bari lool waaye waa ji li muy bànneexoo mooy di ko konte moo tax soo seetloo benn saar bu jege suuf tabaraka wa taala di ca wax lu am solo mooy waylun li kulli humasatin lumasa taskare ñeel na koo xam ne day jëwe bët tey jëwe làmmiñ alladi jamaa maalan wa addada foo ko fekk ma nga dajale al konte rek konte rek te it nag yaxsabu anna maalahu axlada yaakaar na àllam ji dina guddal fan yaakaar na alal ji dina guddal fan li muy tekki mooy waa ji nga xam ne mooy compte alal ji day wax ne 1997 comme am naa 4 milliards te it projet bi ma def nangam la bu ma fi demee 98 war naa am 8 milliards parce que revenu bi lii la toll ci nangam bu ko defee su ma àggee 1999 danaa am 3 fois 6 moo di àggee nga gis muy compter ba l'an 2007 waaye léegi kan moo ne koom dana fi nekk ba l'an 2007. mooy konti bi yaxsabu day yaakaar ne anna maalahu axlada kalla yàlla ne déedéet daal di koy bett la yumbazanna fil xutama su fa nekkee konti te jaamu yàlla xanaa nekk ci mbiram yooyee dañ koy bett rek la yumbazanna fil xutama sànni ko ca sawaraw xutama yàlla na ci yàlla musal wal qanatir al muxantara min alzahabi ci or wal fidda ak xaalis wal xaylil musawama ak fas yu ñu mandargaal fas yoo xam ne dañu leen mandargaal bu doon ci jamonoy tey nag fas yu ñu mandargaal yii mooy oto bu doon ci jamonoy tey bu xam naa ñoom ibnu abbas radiallahu anhum yal na yàlla kontaan ci ñoom tafsiru tey bi wal xaylil musawama ay fas la woon ay warukaay la woon waaye wa idal isaaru uttilat ja tax na ba léegi fi mu nekk nii waruwaay yi di bari na lool waaye musawama yu ñu mandargaal ku la romb ak benn rek keneen romb la ak bu gën a rafet booba tabarkalla loolu yàlla dogal wal anaami ak jur gi wal xarsi ak mbay mi yii yëpp doomu aadama daal su sañoon rek moom ko su sañoon moom bànneexu ci jigéen ñi am soxna yu bari bànneexu ci doom yi am doom yu bari bànneexu nag ci ay seg yu bari yoo xam ne ma nga mu denc xanaa tiir mu xantara maa moom or bi maa moom xaalis bi maa moom fas bi maa moom jur gi maa moom mbay mi doomu aadama loolu daanaka su sañoon loolu lay dunde moo tax yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci bu hadis naan doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf su amoon aw xur sax ci or ne ak a neexoon ma am weneen doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf te ta moomeel gi tamit nag loo xam ne yow moomoo ko zinatul xayati dunia addunaa ko moom da nga fee ñëw ñu abal la ko nga remplacer fi aw gaay fas bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo géej bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo or bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo oto bi nga moom lenn lu ne lu waay moom rek daa am ko ko moomoon ngeen weccax ndi ko mu dugg say loxo léeg-léeg sax boo demee ca bitig ba da ngay jël ci li nga moom yow jox ko mu jox la moom ca la moom ñu koy tuddee jënd ak jaay ma ne loolu nga xam ne boo fii xëyee da nga ko fii bàyyi lépp lépp lépp lépp ah da nga ko fii bàyyi lépp da ngay daal di gis ne kon loolu moom la ci yàllay teg zalika yii muy lim yëpp mataaul xayaati dunia moo di yóbbulub adduna bii rek addunaa ko moom fi nga ko fekkoon fi nga koy bàyyi moo tax ku fi judd da ngay bank say loxo pour wan nit ñi ne indiwu ma dara boo faatoo taalal say loxo wan nit ñi ne yóbbu ma dara nit ñi dañuy nangu li nga yor lépp sumi sa mbubb nangu say weer tekki sa montor dindi sa jaaro dindi dindi ba far saw tur ci boppam dañ koy nangu léegi ni nga tudd mooy néew ana néew bi mi ngi ci jàkk ji rek waaye saw tur lu dañ ci jaar waaw adduna nga xam ne fii ngay jaar ak moom teen koo war bala laa war waru suñ maam suñ maam Moussa Ka nee na adduna da nga koy war bala laa war ndax soo ko waru tit moom dina la war mu ne seytaane bànneex ak bakkan ak dunya ku leen fetal daane nga noonu yu bon ya kon nag kooku jaar naa waajal moom ci boppam tabaraka wa taala ne nag wallahu yàlla nag indahu nekk na fa moom nag husnul maab delluwaay bu rafet husnul maab delluwaay bu rafet moo di kon yii mu lim yëpp na nga fexe ba booy dellu ci yàlla nga dellu dellu bu rafet loolu la tabaraka wa taala moom xam ne moom la doomu adama war a taxawee waaye nag nekk fii di sëgg ci yii nag fexe benn du la ci raw te it loo ci barle barle barle fii nga koy bàyyi rek waykat ba noonu na wa innama awlaaduna baynana أكبادنا نمشي تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعدهم lam tanaad ayni ala alxamd mu ne suñu doom yi ñu ngi ci suñu diggante di dox doon daggit ci suñu xol nee na bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gàddu leen yóbbu leen nee na duutul gëmu mukk moom day xool rek ndax doomam yooyu nga xam ne moom la ngelaw di yóbbu ma ne kon yàlla tabaraka wa taala mi ngi wane fii lu am solo mu ne doomu adama bu nekk ci kaw adduna si nuy sóoraale dellu ga muy dellu ci yàlla te xam ne dellu ci yàlla dellu ngu rafet moo gën lii xul waxal yow yonent bi a unabbiukum bi xayrin min zalikum ndax du ma leen xamal ndax du ma leen xibaar lu gën li ma doon lim léegi jabar yu bari doom yu bari or xaalis fas jur gi ak mbay mi mu ndax du ma leen xamal lu gën loolu ñu ne ko ah kay loolu di jar naa laaj loolu ndax nga xamal ñu ko mu ne lillazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xam ne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su dee def leen ñu def su ne bàyyi leen ñu bàyyi fa seen borom am nañ fa jannatun ay aljanna tajri dana daw min tahtiha caroon aljanna googee al anhaaru ay dex al anhaaru ay dex dexug soow dexug lem dexug meew ak dex goo xam ne gii dexug sàngara la sàngara su bukk teg suñu sàngara si lu dul aw tur aw tur rek la ñu bokk ñoom ñaari sàngara yooyu te it boo fa demee moom aljanna alquran day bari lu wax tajri min tahtiha al anhaaru ndax doomu aadama fii ci àdduna dafiy soxla ndox léeg-léeg ndax soo amee ay fan amuloo ko da ngay sonn te it boo demee yomal xiyaam nag bu weer deexee kenn du la wax ne ah mbir mi ngay faye ndox mi ngi nii yàlla tabaraka wa taala xam ne ku dem foofa noppalu mu ne tajri min tahtiha al anhaaru yému ca de xaalidiina fiiha ca la ñuy sax alaxira dafa dul sàppee ndax fii ci adduna léeg-léeg nga nekk fi sa kër yàgg ga nga yàgg sa kër tax mu sàppi la te it léeg-léeg nga yàgg fi comme da ngay gën di màggat ku màggat ku nekk am yu la safoon dootu la saf waaye foofu nag moom dañ lay blende ci benn âge boo xam ne bii rek doo ko weesu jëm kaw xaalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seeni ja soxna foofu it mutahara soxna yi dañuy laab moo di laab-laab goo xam ne anit danasi wal xubus al xissiyi wal wal maanawi laa yataxawatna wala yatabawalna wala yaxidna wala yanfusna wala yaxtarina maa yaxtari nisa dunia lii gàllankoor jigéeni jamono du leen gàllankoor moom daal azwajum mutahara dañuy laab tabaraka wa taala hunna alxawaani allati yuxjilna badar yadin ay jigéen lañ yoo xam ne bu ñu génnee weeru fukki fan ak ñeent jours wa ridwanum min allah yàlla doole leen ci ngërëm loo xam ne ci moom lay jóge wallahu te yàlla nag basirun kuy gis la bil ibadi ci jaam yi mbokk yi xoolal fii rek teraanga ji fi yàlla def subhanahu wa taala defal ko ñi nga xam ne ñooy almuttaquuna ñu ragal yàlla nga gis ne bi bi koor gi ñëwee dafa nañu woon laallakum xëy na tattaquuna ngeen am taqwa lim ñu ci doon yéene kon mooy teraanga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhaar aljanna joo xam ne dex yaa ngay daw azwaajum mutahara ay soxna yoo xam ne ñu laab lañ wa ridwanum min allah ak ngërëmu yàlla ma ne yëpp wallahu te yàlla nag basirum bil ibad mi ngi gis jaam yi mi ngi gis jaam yi moo di ne teraanga yii kenn ku nekk soo ñëwee yàlla xam na ña ko yeyoo ba mu leen koy jox waaye yàlla xam na ña ko dul yeyoo ba du leen ko jox moo tax wallahu basirum bil ibad yàlla ko gis la ñi nga xam ne ñooy ay jaamam su ko defee kon mbokk ñuy déglu ñu ngi yem ak yéen foofu ci aaya fukk ak juróom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi weesu ñu ngi taxawoon ci suratu ali imran bi mu amee fukki aaya ak juróom war a tàmbalee tey ci aaya fukk ak juróom benn fukki aaya ak juróom yàlla doon ñu woon keroog lu am solo muy li mu bàyyeel ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ci ay teraanga ëllëg mu di jannatun tajri min tahti al anhaaru xaalidina fiha ñaari xéewal wa azwaajum mutahara ak i soxna yu laab mu ñett wa ridwaanu minallahi ak ngërëmu yàlla foofu wallahu basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yi fi la ñu taxawoon keroog war a tàmbalee tey ci melo yi ñooñu nga xam ne ñooy dugg aljanna nan la ñuy mel mu di sama borom dafay tëral programme wax ne ku bëgg a mel nangam boo jaaree nangam mel nangam waaye ku jaar ca safaan ba noonu ngay mel mi ñuy indil juróom-ñaari melo yoo xam ne ñii mu ne ñooy dugg aljanna am ngërëmu yàlla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab nee na ñooñu alladina yaquluuna rabbana innana amanna faxfir lana zunubana wa qina azaba naar alladina nee na ñooñooy ñi nga xam ne yaquluuna dañuy wax saa su ne ñi ngi wax yaquluun dafay jëfandikoo fi'li mudaari di wane ne saa su ne ñi ngi wax du ñoo xam ne dañ koy wax benn yoon rek fu ñu toll ñu nga naan rabbana yow yow suñu borom inna naa ñun sa jaam yi aman naa gëm nañ la muy benn benn jikkoo nga noonu wala wenn meloo nga noonu wi njëkk ci ñi dem aljanna muy al imaanu gëm gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi rawatina gëm téere bii di alquranul karim bu ñu gëmee ba noppi nag ah lay tege kon mooy faxfir la naa nga jéggal ñu yàlla nga ñu jéggal sunu ba naa suñuy bakkaar waqinaa yàlla nga ñu fegal azaba naar mbugalum sawara kon foofu boo ko seetee ñaari melo ñoo fi nekk muy melaw imaan gëm wi waaye melaw toroxlu di wan yàlla ne ko lu ma mën di def soo boolewul sa yërmande ci li nga xam ne moom lay def du ma dugg ca kër gu neex googi ndax kër googu ñuy wax aljanna biyam la nit munta am comme kenn munta am biyam da ngay def li nga mën lépp yàlla mottulil la lépp loo xam ne dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu koo am la ngay def mooy da ngay def li nga mën lépp ne yàlla léegi nag bii bi ma tut yàlla moom tabaraka taala ñëw matalil la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy waxtaan ak sahaaba yi benn bis ne leen amul kenn ci man ak yéen ku jëfam di dugal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yàlla nuural ma ci biir yërmandeem loolu li muy tekki mooy aljanna dafa seer seeraay boo xam ne billet ba la kenn mun sa am waaye nag da ngay def li nga mën lépp la des yàlla matalil la soo deful lenn nag ku ku tàmbaliwul day naqaree matalil moo tax ñii ne aman naa gëm nan muqtadiyatul iman yépp nag ñu def ko mooy lëggëm di laaj ba ñu noppee nag ñu daan na kon nag yàlla faghfir lana ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu zunubana suñuy bakkaar waxi naa ñoo ngi ñaan nga fegal ñu azaban naar mbugalum sawara fii it alquran a ngi jàngale yàlla fegal la mbugalum sawara bokkut ak nga ne yàlla yàlla nag ma dugal aljanna ndax buñ la fegalee mbugalum sawara te foofa ñaari kër a fa nekk ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waaye nit mën naa dem aljanna te muccul ci sawara moo tax da ngay ñaan mucc sawara ku mucc ci kër gee rek yàlla mën naa def nga dem ca kër gee waaye nag dem aljanna moom nit mën naa dem aljanna te du tee mu jaar sawara ndax am na ci nit ñi ñoo xam ne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fóot leen ba ñu set ñu door di jàll ndax am na loolu kenn du ko yor di duggaaleeg mu aljanna gisuloo bantu almet lii na ci bopp bi su fekkee dañ na du du takk waaye li feeg mi ngi ci bopp bi boo ko kosee ci ndeyam rek mu takk loolu yi tax muy takk li feeg tagguwut ak moom day takk doomu aadama li tax muy tàkk kon moom mooy dafa am lu muy àndal ñu ko tuddee ak zan bu muy bakkaar li feeg dañul ci moom moom it bu jegew sawar a tàkk yonent yàlla ibrahima sànniwoon nañ ko ci biiru sawara te tàkkut lu tax parce que matière bii tàkk matière boobu la ibrahima yorutoon lu tax parce que dafa wéetaloon suñu borom ba loola jeex ci moom moo tax ñu sànni ko ci sawara wa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim kon ñaari melaw nga noonu mbokk yi muy melaw nangu ne yàlla mooy sa borom waaye melaw nangoo toroxlu ci ne ko jéggal ma samay bakkaar te fegal ma mbugalum sawara ñaaral mero bi assaabiriin muñkat yi assaabiriin muñkat yi mooy ñetteel bi muñ jikko la joo xam ne yàlla nga koy taggee jullit yi nga xam ne dañu koo gëm te mel-melo yii muñ nag ñaari muñ moo am asabrul kasbi ak asabrul ijbaari muñ goo xam ne dañ la caa forcé ak mur muñ goo xam ne yow yaa muñoo sa bopp ñaar yooyu nag muñ ji gën a kawe ci muñ yi mooy muñ goo xam ne kenn forcé wu la ci du ijbaar yi mais kas bii la muñu ijbaar yi ak muñu kas bii nañu dem ci xissab yusufa tuuti rek ngeen gis ne ba ñuy sànni yusufa ca teen ba muñ googa du woon kas doon kas bi ndax kuñ yeew say loxo yeew say bët yow sa gémmiñ yow say tànk san la cib teen soo muñee da nga ci dugg soo muñee da nga ci dugg loolu moom sabru ijbaar yi la mooy li doom li olof di wax ne ma muñ boog ma muñ boog ndax léegi ci pexe wéy na waaye kera bi nga xamee ne nag àgg na ci misra am fa ab diir buuru misra bi jabar ji nga xam ne moom la am daal di koy sàkku yusufa sori aw bokkam nekk gone am kàttan dara manqué wu ko tabarkàlla soxna su woo ko mu ne ko maasallah loolu mooy asabrul kas bi nga xam ne tey moom mën naa muñ mën naa jote soxna si mu muñ loola mooy asabarul kas bi muñ googu moo gën a rëy ci muñ yi moo ci gën a féete kaw kon asaabir na muñkat yi wa saadiqiina ak ñi dëggu dëggu ci seen i wax dëggu ci seen i jëf dëggu ci seen i jëflante dëggu ci seenu melo te it doo leen gis seeni yére wuute ak seeni jëf sadiqin muy ñeenteel melaw yi wal qaanitiina ak wommatukat yi wommatukat yi mooy ñi jaamu yàlla nangoo wommatu ci li nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala di santaane mu di ñi nga xam ne dañuy wommatu ci yàlla alal ba'sa'i wa darra di wommatu ci yàlla fi shidda wa raxa mooy su naqaree ñu wommatu ci yàlla su neexee ñu wommatu ci yàlla maanaam dañu jaamu yàlla jaamu yàlla boo xam ne ji suñu feebaree ak suñu feebaru suñu banquee ak suñu bankut loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom gisaa nga ci doomu aadama ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu rafet sax duñ jàpp bu ñu toilette toilette bu rafet